Euh, waa renvoi bi yóbbu nañ ko tribunal pour euh, viol présumé léegi est-ce que di nga wuyu ji procès bi bu ñu jàppee date bi am déet ñaareelu laaj bi mooy nee nga léegi nee nga léegi euh, tontu nga ci laaj yi sànq yi la juge bi laajoon yëpp juge boo xam da nga koy récuser après nga tontu ay laajam n'est-ce contradictoire non récu su ma ko récuser woon samay avocat dañuy bind ne récuser nañ ko loolu lu ñuy traité la feneen ci procédure procédure dafa gudd dossier bi commencé gul kat donc procédure dafa gudd lépp li nga xam ne avocat yi noté nañ ko ci li nga xam ne ay vice de procédure la am na fu ñu koy war a régler moo xam chambre d'accusation la moo xam su procès nare am mais su ma ko bëggoon récuser dañuy bind ne récuser nañu juge bi ñaar yooyu moo tax jàpp nañ ni vice de procédure am na mais ça nous woo na ma ma dem uyu ko parce que même su même su ma ko réutilisé woon su ma wooyee dama war a dem uyu ji parce que institution judiciaire bi la ñu jox respect c'est pas sa personne qui nous intéresse donc su ma ko demee uyu mu laaj naa ko tontu tontu naa ko question yi mu laaj yëpp ñaareel bi nga wax nag mooy loolu duñ ko wax léegi xam nga li am solo dama ne dañoo nekk ci yoon. du lépp la ñuy wax dinaa dem ci procès bi du ma dem ci procès bi dinañu àtte du ñu àtte nangam nangam loolu du fii laa koy waxee li ma mën a wax mooy wax naa fi ñu toll ci procédure bi ak li ci nekk ci ay njombe sénégalais yi nag nañu wax ci njombe yooyu parce que du ngeen ñu faral ay ay étape ñu ne nañu tëb ci étape bii di ñëw suul ñun suulaguñu man egguma ci waxu procès fii ñu toll nii la ñu wax si wax ak sénégalais yi li am ba ñu xam ni lii du dossier judiciaire dossier politique la te ñun dañ koy traité politiquement moo tax du fi nekk naan la maa ngay dem procès dew ma procès lii dina am wala dina am. Sénéinfo.